mais ku doon def trafic de médicament bi Macky moo signé décret buñ ko libéré mu ne ko nax. jinne la ko yóbbu. <laughs> non. non yu garaw. mais est-ce que du loolu moo tax mu bëgg jël Ousmane Sonko ne jox na ko dëgg ci kaw Mamour Diallo. non ça <laughs> le grand piège. Euh, ça c'est un signe c'est un qui montre qu'il est proche de capturer Ousmane ah bon. oui c'est un signe très positif montrer que l'arrestation d'Ousmane Sonko est imminente. Tu as compris? J'ai très bien compris. montrer que l'arrestation de... Écoute, le bien ce que j'ai tout ce que j'ai dit après, tu le remets, tu me dis tu as raison. L'arrestation de Ousmane Sonko est imminente. dina ko jàpp. da koy jàpp su ko duloon jàpp rek parce que amul su beneen poste Adji Sarr la amoon Adji Sarr bi xam na ni c'est mort. quatre-vingt-quatorze milliards yi xam nañ tamit c'est mort. yaa ngi dégg. waaw léegi li muy wër mooy topp Ousmane Sonko ku mu dem ba crime am fa ba ñu rey fa nit. c'est ça qui dafa bëgg ñu ngi yónni xeex ak gars yi ba am ku ci dee maintenant Ousmane Sonko dara convoqué pour pour pour ah bon daf ko bëgg a accuser pour de meurtre encore. waaw moom la ñu koy accuser kay parce que Ousmane Sonko bu génnee xeex ak ay gars am ñu am am benn waay Ousmane Sonko bu rey benn waay ñu bokk ci ci pour entendre ko xam nga. mais foofu la ñu koy arrêté du ah léegi kon si diiru Adji Sarr bi da ko bëgg a teg ci suuf. non kii waa Sarr bi te bii nii wax ni mënu ci daaw léegi beneen la ñuy wut boo gisee boo gisee ñuy def tentative yëpp ci kaw Sonko nii parce que lañ ci ko am baaxul. ni la ko jëlee la ko jëlee fii baaxul mais damay dem xaaral tamit mu jàppee bu léegi terrorisme lay menacé gars yi jàpp Ousmane Sonko xanaa sous prétexte. non day day day gars yi Ousmane Sonko yi ñoom ñoom ñoom ba ñu tàng suñu tàngee bu doon mbir bi attaqué tey ñu rey ci kenn buñ ca reyee kenn nag ci la ñuy nag naan ah daa yaa yaa moor fam il faut que ñu entendre ko waaye bés bu Ousmane Sonko tegee tànkam commissariat boobu ñu koy entendre boobu la gars yi di ko dégg. non.

maam yi defoon ñoom la jëloon ñoom Maba Jaw waaw xeex nañ ñi ne ngeen dañuy dund dund <laughs> de kon instant solution lay uti waaw waaw léegi rey nit bu fa amee rek ñu am alibi pour Ousmane Sonko. kenn doo ko décidé. lu leer naa la wax te li mu lay wax nii ay samay gars yu leer dégg yu leer ñoo ma koy wax. Macky Sall lu muy teg si boppam moom xam naa ko. non de Dieu. dégg nga li muy teg si boppam sama gars yi sama gars yi ko tege ñoo ma koy wax. ay nit entourage am ñoo waaw ay tukulóor la ñu ñu ñu ñu <laughs> lu mu teg gars yi wax parce que nee naa la entourage am na ñu ànd ci def Sénégal te bu xeet mais am na ñi nga xam ne am nañu ci ñi ci ànd nag nekk ci biir ñoom ñoo teg teg secret yi. non.